xew signalement la ci moom ne bul jéem dugg ci mbiru troisième mandat est-ce que itam lii xew euh, da koy day baral yoonam ci li mu bëgg jiite réew mi est-ce que aussi évident que ça. d'accord ce que lu mën a nekk la. Euh, ñu tàmbalee ci Macky Sall xam nga Babacar mos naa ko wax ci benn tele Covid bi bi mu éclaté Quai se dañu bind benn note bu confidentielle. wax ci ni Covid bii bu yàggee réewu Afrique yu bari dinañ sooxe réew yu bari dina am guerre civile réew yu bari dina am coup d'état ndax crise economique bi mu nar a àndal ak coono bi mu nar a indi ci peuple yi moo koy waral mais bi ñu bindeeloo dañu dañu dañu simpi woon Sénégal ni Sénégal mën na bokk ci exception yi. da nga wax bi gis nga li xew Sénégal man damaa jàpp nii li war a préoccuper Macky xam nga ñuy wax Macky Sall di wax troisième mandat man ñooñu dama yaakaar ne xanaa ñoom dañoo <coughs> amul analyse wala duñu gis àdduna bi ni mu bindoo xam Macky Sall lan la war a siiw fi ñu toll nii terminer deuxième mandat bi réew moo xam ne on est à presque une croissance négative jóge 6 pour cent de croissance ba 0,7 pour cent de croissance nga war a dem ci beneen année boo xam ne nii sa affaire bi day gën a metti réew mi di gën a tar. nga jànkonteeg jeunesse boo xam dañuy gën a mer mais grand man je pense que ñi ku bëgg Macky Sall dëgg dëgg dëgg dëgg da nga koy xalaatal nu mu mën a defee pexe sama gis-gis man hmm? ba terminer deuxième mandat bi pour man loolu mooy débat bi. mais ay troisième mandat non defe naa ay trois loolu beneen débat xam nga lu tax. Mhm. dans tous les pays africains amul benn service secret étranger buy liggéey ci Afrique boo am xam-xam boo xam dafa jàpp ni fi mu toll nii. am na benn pays africain benn kese bu am sécurité xam nga ma donc affaire bu garaaw la affaire bu doy waar donc pour man li ñu war a siiw mooy nu ñuy def ba préserver équilibre réew mi ba dara bañ fee am ba deux mille vingt quatre. du ko jéem. yaakaar nga <laughs> non sama gis gi dama ni ku ko bëgg war ku koy xalal. Mhm. et je pense que Macky Sall sax xam naa ne looloo ko gën a préoccupé sama gis-gis man bokk parce que xam naa ne il est extrêmement informé. est-ce que mandat bi fi ñu toll problème yi ñu am. problème yi est-ce que mandat bi Cheikh mooy dernier mandat wu Macky pour tontu bi leer. non loolu moom xam nga xam nga loolu je man euh, du ma du ma je de la divination analyse politique laay def. man analyse man analyse politique te nekkuma ci boppu Macky Sall. mais dama bëgg a wax ni. li yoon tëral nag. am nii fee yi am nii. fee yi am nii. analyse politique sur. Euh, l'existant c'est-à-dire. Euh, voilà dama ni li nga xam ni. man mooy li xew ci réew mi. voilà ak li loi yi wax. waaw non li loi yi wax moom xam nga loi moom. Euh, yaa ma gën a xam loi. ak niñ koy interpréter en Afrique. <laughs> loi moom beneen affaire la. te boo demee ci domaine loi rek yaa toutes les thèses sont possibles. ci droit nga jëm ci loi Sénégal nii te thèses yëpp possible. loolu moom maa la ko wax mais dama ni la. dafa am une situation leer ci mandat bi wax dëgg yàlla. mais loolu bëgg xam nañ ni vraiment da ngay assumer say positions. non loo bëgg lan nga bëgg ma tontu la ko ci mandat est-ce que hmm. Macky Sall. Hmm. non seulement euh, war na ko mën def ko def. non loolu problème mu Macky a def non defe naa non defe naa defe naa. problème bi xam nga yàgg naa ko wax ñu dégg ko y a l'article 27 de la constitution boo xam ni moo ni. nul ne peut plus de deux mandats consécutifs. leer na. verte bi daf ni kenn ci senegal xam nga nul mooy lan nul du personne de xam nga nul ak personne personne ne peut ak nul ne peut du benn personne ne peut faire kenn mënta def. Mm-hmm. nul ne peut mooy kenn mënta def ci benn anam xam nga du benn ci français voilà constitution waxul personne ne peut daf ni nul ne peut plus de deux mandats consécutifs leer na. waaw dama ni la problème mu Sénégal problème Macky Sall pour man du problème troisième mandat xam nga mooy lan problème mu terminer deuxième mandat bi parce que tous ceux qui ñi xam li xew yëpp xam nañu suñu réew ñi ngi courir danger yu grave yoo xam ne ni priorité fondamentale bi mooy nga préserver équilibre ba ñu passé at yi parce que loolu c'est pas évident loolu moo évident. ak li coronavirus bi voilà ak coronavirus bi li muy indi comme impact. c'est ça bon Ousmane ci li xew ak 2024 non Ousmane Sonko euh, dégg naa ci discours am mu wax ñaar yu retenir sama attention benn bi dégg naa ko mu ni du ma contester légitimité Macky Sall du ma ñëw di demander de enfin contester sa légitimité d'accord mais du ma demander démission deuxièmement mu insister ni j'appelle à des manifestation pacifique lu tax may retenir loolu. dañoo nekk ci context boo xam ne dafa laaj apaisement parce que réew aussi day toll foo xam ni faw ñu teg bal bi ci suuf yëf yi teey donc ñaar yooyu ñaari mbir yu may rafetlu ci waxam la li ci topp nag mooy Babacar. Mhm. le temps politique il est long. 2024 sori na lool. sori na jege na. la <laughs> mën na ci xew. non le temps politique. surtout avec la subite accélération de l'histoire là le temps politique est très long pas accéléré là ah non le temps politique est très long hmm. fekk lu bari mën na ci xew te fekk 2024 li ma gëm mooy Karim Wade day dellusiwaat ci langue gi ah logiquement ci politique boog boo koy analyser Khalifa Sall day dellusiwaat ci langue gi da nga jàpp ne Macky na leen ubbil buntu gi non politique dafa am yoo xam ni politique moo koy teg loolu avantage Ousmane Sonko ma ni condition yëpp ma ni chaque 2024 déglu baax li ma la ci télé la ñuy waxee Karim Wade day dellusi ci langue gi Khalifa Sall day dellusi ci langue gi am na ñeneen ñu bokk ci famille présidentielle yoo xam dañuy dugg ci langue gi. mooy ñan ñi mu génne woon fan yi ah, te ñu ne ah, ah, fan yi mi ngi tàmbalee mel ni ñu gis ak ñoom ñu ngi préparé wu donc gars yi dañu langue gi day yaatu de. langue gi day yaatu maintenant nag. kan mooy kon kon kon hmm. li nga bëgg wax ni Macky Sall dafa nekk ci logique gu ëffal gaa yëpp fii mais contexte bi loolu la laaj contexte bi li mu laaj mooy nga ubbi le le champ politique. c'est aussi simple que xam nga lu tax parce que bu boobaa moom. non moom bu boobaa moom. bu bu bu fekkonte ni du yootuwaat hmm. tax ñu bëri jàpp nañ ni xëy na du ko def. Hmm. mais bu ubbee. Hmm. moom bu ngembee mbër. mbër moom itam day jafe ci moom itam. waaw mais ubbi bi dafa am ñaari avantage dafa am ñoo bëgg a jox mais dafa am ñoo bëgg a xañ. xañ gi mooy priorité. parce que li lay sécuriser mooy am na ñoo xam da nga leen di xañ parce que bala ngay joxe da ngay xañ ñenn bi ba pare am ñoo ñooy viser pour jox leen ndax sa nguur kenn du ko sànni ah parce que boo ko sànnee danger yi nekk après la ko donc Macky Sall même bu bokkul ci élection bi facteur bu important la doon ci élection bi moo tax man la fii boobu langue gi day yaatu moo tax képp kuy taxaw di analyser di wax di di moo tax ku xamul politique la.

donc yëf yi dina yaatu lool li ci def nag au kan mooy jël kooku nag moom xam nga affaire yi aussi affaire askan wi la loolu déedéet as affaire yu yàlla la gis nga gis nga man dama boo loo yàgg ci politique gën a analyser gën a gis dangay xam ni yëf yi ca dëgg-dëgg yàllaa koy joxe li daa ma maa maalikal mulk boobu man moom laa gëm yëf yàlla mooy seet ki ko neex créer condition yi bëgg pour jox ko ko man loolu laa gëm. Macky Sall Macky Sall bi xam nga Macky Sall lan moo tax mu hmm? jot ci 2012. parce que mosul nekk ci schéma Ablaye Wade Ablaye mosu ko jéemal dara man waxtaan ak Ablaye au moins trois 4 fois avant la élection xam nga xam nga Ablaye lan moo doon obsession. Hmm. ak ak ak bañ a juboo au que bu juboo woon mënoon na jeex sa premier tour xam ma bi affaire boobu éclaté la Ablaye Wade ni bon affaire bi jeex na. parce que yàlla moo ko làqoon boobu Macky Sall affaire bi yàllaa koy joxe analyse c'est vrai ah di nga gis di nga gis ni di nga mais affaire bi yàlla moo koy joxe. bon après génn nga ci analyse bi non non mais parce que xam nga analyse dafa am ay limites objectives. Hmm. oui ma Macron en France. on le voyait venir non y a beaucoup d'analyses non les gens le voyaient venir mais kenn mësul xalaat ni day jël nguur gi xam nga bi yàlla bëggee mu jël nguur gi xam nga nu mu def. waaye dafa ñëw kaf parti bi. Hmm. fio am problème bu dul jeex. Hmm. scandale bu grave éclaté. Fillon taxawee ne yaa ngi dégg mu jàkkaarloog ma ne yàlla yàlla mooy organiser sëñ bi hmm. parce que loolu xam nga su ko l'alignement des planètes. maanaam maanaam mais dikkaatu Karim Wade. waaw ci langue politique gi. loolu doon bu am solo la. waaw euh, dina. indi ay bouleversement yu bëri ah. bu am solo la. dikkaatu xalifa Sall def et puis sax moo jaadu nag grand. léegi ànd gi mais ànd Sonko ak euh, Sall ànd jamono yi euh, ànduk euh, ngistal la rek. waaw mais du et àndu premier tour. même bu dee ànd du àndu premier tour. fii koo fi mën a ànd li premier tour day dem nga dem deuxième tour ko gagné kenn gis ko mais et puis mon frère bu ñu waxantee dëgg nag. mais xalifa Sall ak Karim Wade dañu war a ñëwaat dans le jeu politique mais où est le problème mais nit ñi aussi il faut que Sénégal aussi ñu nekk ci configuration boo xam ni ku war a présenté wu présenté wu. ñu jox possibilité Sénégal yi ñu choisir nooy def dogalu tribunal bu boobaa. non tribunal amnistie loi d'amnistie dafa am ci lu ne gis nga amnistie dañ ko créer pour régler ay crise politique loolu rek la c'est-à-dire instrument boo gis rek mu am ci réew ci droit rek am na lu muy dox. am si li muy dox mooy fàtte li nit ki defoon pour nit kooku am possibilité am beneen chance te yàlla nag attention yàlla mi ñu bind sax bu du doon fàtte ñun fan lañ jëm fan lañ jëm ñun ah donc nañ fàtte waaye affaire yi. léegi. ah euh, Macky Sall ñi mu génne woon ba muy yeesal yeesal gu mujj gouvernement waa